waxtu jot ci heure yi su jotee altine talaata àllarba ba alxamis gis ngeen nañ koy àndee ci liggéey bi tabaarakallah mu mel ni nag mbokk yi tey euh, euh, dañoo demoon nag ba ceesit indi leen ndaanaan bu kenn dul laajte ci réew mi moom ay jaar-jaar am fu mu jaar loox foo xamante ni tabaarakallaahu bu ñu demee ba ci kanam du ñàkk temps bi dinañu ko may ndax tey moom Maodo temps bi xaw nañoo xaj waaye ñu sant yàlla rek gërëm ko tabaarakallaahu nuyu bu baax ki nga xam ni mooy Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye nag tabaarakallaahu di ndaanaan bële borom verre yu rafet yële tabaarakallaahu euh, euh, Kéba kee mooy Mouhamed Ndiaye di ndaanaan bu kenn dul laajte ci réew mi tabaarakallaahu ci taxawaayam waaye ci njàmbaaram waaye macha liggéey bu rafet la tabaarakallaahu dinañ ñëwaat ci moom incha allah waaye nuyu ki nga xamante ni nag mooy euh, Cheikh Makoura euh, di ndaanaan boo xam ni moom ah, incha allah bu bu jógee rek na ngeen yëg ni ndaanaan ñëw na mu féete ma sama ndeyjoor waaye nuyu ki nga xamante ni mooy sama càmmoñ di Cheikh Babacar nduur moom it ñu nuyu ko ziyaar ko bu baax a baax a baax a baax bu jógee di ngeen xam ni ndaanaan ñëw na ci télé bi tey waaye du ñu fàtte Mamadou Sow waaye du ñu fàtte mboolem équipe. bi nga xamante ni Cheikh Mouhamed Ndiaye ànd na ak ñoom fas yéene leen a bëggal tey incha allah Maodo. mel na ni tam ànd nañ fi ak sunu sunuy sunuy jigéen sunuy sœur yoo xam ne macha allah mm-hmm. euh, euh, kenn du tudd ci kër Cheikhna Cheikh Saad bu te doo leen tudd mm-hmm. ndax seen njàmbaar seen baax kenn ki di ajaratu Faat Diop si soxo tabaarakallaa borom vertemante bële tabaarakallaa yàlla ko yàlla defal tawfiix nuyu bu baax euh, sëriñ bi si soxo ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom borom këram moo nekkoon sama médecin u papa ndeysaan yàlla na yàlla yokk leer gi góor gi Assane Diaw waaye tabaarakallaa Cheikh si soxo yàlla na yàlla guddal fanam aar ko Fatmata Gueye di ndaanaan xam naa yooyu yëpp buñ demee ba ci kanam Mouhamed Ndiaye di ne ko gën a ñëw leeral ko ba mu gën a leer kon Fatmata ñu ngi kontaan sa teewaay di tàggat Seydina Mouhamed bu mag a mag a mag a mag Mouhamed euh, euh, Maodo Malick ma jox la nga nuyoo incha allahu taala ñu dugg ci liggéey bi mubasharatan jërëjëf Cheikh Souleymane euh, gannaaw bi ñu la fayee nuyoo di la ziar bu baax a baax a baax mhm. di kontaan ànd ak yow si plateau bi mhm. di gal euh, dalal suñu gan yi nga xam ne yu tedd yi te sell mhm. euh, di waa kër Cheikh Abdou Khadir Jeylaan yal leen yàlla taxaw bu baax a baax di ñëw si kër gi rek di nuyu sëñ Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass moom mi nga xam ne moo wuutu baayam Euh, dama koy wax chaque jour. Mhm. yàlla na ko yàlla defal tawfiq tay si di nuyu mhm. al Oustaz Assane Diouf. ak mhm. Serigne Hadi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. ak ah, kon ñuy xaar ba allah. jërëjëf euh, tabaarakallaahu macha allah ci liggéey bu rafet boobu boobule. tabaarakallah euh, xam naa rek incha allahu taala dañuy bàyyi sunu gaay yi di Makuro mu tàmbali ak ñun. incha allah bu ñu nee ba ci kanam ñu door ñëw nag ci Mouhamed Ndiaye. tabaarakallah wala rek ma ñëw mubasharatan ci ki nga xamante ni. mooy Mouhamed Ndiaye te ñu xam ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñu jox ko kàddu gi eh, Mouhamed asalaamaaleykum wa rahmatullah di la bëggee di la jox sa wàccuwaay di bëggee palaato bi yëpp di jot nuyu ñëpp a ah, di kontaan ci teewaay bi ñuy ñëw fii ci Walf mhm. yow wax dëgg yàlla li may wax gars yi rek ñoo ci nekk ba yow lundi ak mardi la dafa mhm. yàgg mhm. ngay sama xarit lool ngir mhm. yàlla ak Seydunaa Muhammad alayhi salaatu yàgg na maa wax ndeysaan lu ma am tëkkat tabala bu ma gis ci àdduna yow yaay sama tëkkat yaay sama sippati di ma ko biral nag fu mu toll li koy firndeel nag mooy lii ñëw woo ma ma ñëw man ak sama staff bi ma àndal euh, ñëw ndakaaru fas mhm. yéene bégal jaam ñi mhm. ci yonent bi sallallahu lii wane na ni ni sama sa cofeel ci man yaatu na rëy na mhm. ma ànd goog nag sama gaay yu baax yi nga xam ni moom la ma Sénégal yëpp xamee muy Cheikh Babacar Ndour ba moo ko Cissé euh, ñi nekk sama ginnaaw gis gis nañ leen ñii ñoom la ma Sénégal ñëpp xamee mën nga mën nga leen a waaw Ousmane laay tudd rek mu yóbbaale ñëpp géew Kora Mm-hmm. moom mi nga xam ne mooy sama kuddu mi gis ngeen koo Cheikh. Mm-hmm. Cheikh Fall ma ah, Mamadou fay mm-hmm. fu ma ne boo xoolee sama ginnaaw ñoom nga gis sama ginnaaw ma leen di sant di leen gërëm ba ma leen ko waxee dañoo bàyyi seen it yëpp. macha allah ànd ak man ñëw fii. di gërëm Cheikh Fatou Diop Sakho mais nga xam ni. ma comme ni nga mel ak man noonu la mel ak man. macha allah bu mu yeggee émission bi daf maa woo ni ma Ndiaye ma ne ko ah mu ne ma man ak ma Gueye de yi. doo dem mukk Walf. diñ fi bàyyi. yow Ndiaye foo ne dañ fay ne. est-ce que Diop Seex maa ngi lay ñaanal yàlla yaag fa Diop yaag. Euh, Fatmata Gueye Fatmata Gueye yàlla na yàlla guddal seen fan. jërëjëf seetaanul leen ma benn yoon. tabaarkàlla lu ma nekk yéen a ngeen ci. tabaarkàlla jërëjëf Diaw. jërëjëf jërëjëf Diaw jërëjëf euh, macha allah Mouhamed Ndiaye tabaarakallaahu yàlla na yàlla defal la tawfiix euh, Maodo malik ñu bàyyi la nga nuyoog asken wi. tabaarkàlla waaw ñun daal li ñuy wax rek mooy comme ay invité lañ. Mm-hmm. te dañoo war a am temps bu doy. Mm-hmm. si yoor yooru koor. waaw dafa war a tàng jër. <laughs> kon moo daal tey daa war a tàng. waaw bu baax <laughs> kon nag ñu ngi leen di xaar rek. waaw eh, di nuyu eh, suñu yaay. Seyda Fatou waaw Fatou Fatou Diop. si soxo soxna Fatou Mati nuyu ñoom ñëpp. Mm-hmm. ñoom ñi ngi ne toog. Eh, ak sañse yu rafet yi. macha allah taaral jotaay bi. yàlla defal tawfiq. amiin yaa rabbal aalamiin leen yàlla defal jàmm. waaye ñu ngi nuyu am ñu may seetaan jatu euh, euh, euh, Guèye mm-hmm. ak suñ yaay Mariama mm-hmm. jërëjëf ziar baax a baax a baax jërëjëf tabaarakallaahu Mouhamed nag dafa am ndaanaan yoo xam ne fu mu ne ci Sénégal fu mu ne ci réew mi ñoom lay àndal ñëpp xam ko ak ñoom kenn ki mooy Makura moo ngi nii mbokk yi tabaarakallaahu xam naa ni bu nee der di ngeen xam mooy kan ki ci des mooy Serigne Babacar Ndour bu ne der di ngeen xam li li xew kon ngoog Makura ngoog équipe baa ngoog Babacar Ndour a ngoog bisimilah بسم الله أنت رحمن رحيم يا برم كفلان تبن يا تسيجنان مسل يا تسينيران على جشاخ دنيا لنا كتلو يا لا دي دور ndax jaaduwul kenn di door lu may si moom muy soog a soobu ci lépp luy bëgg a door alaaji Seex Buur Ñaŋ nee na yàlla di buur di borom daal lu ko fi neex mooy nekk daal mm-hmm. lu ma ankul du daalu daal rek a jar di Seex Juuj nag nee moom lii ak lii naaw moo moom luy nekk téef kon moo ko moom alaaji Seex Juuj nag nee na nañ amandoo te ko moom yàlla yàlla moo yayoo ñu topp ko moo sant jaam ñi topp ko leneen warul lu dul topp ko moom yàlla alaaji cheikh du nag nee mu sàkkul di dundal amul keneen ku lay dundal kon lu la warul dul di dundal yoonam wu sell wi dundal alaaji cheikh du du ñang bu cheikh taalib ya del si woon doo soppi sa toogaay bu seex na du ay dara del si doo soppi sa tuugaay alaaji seex du ñang seex ay dara ay dara mm. ma bëgg seex saadu labe way na la jàmbaari góor ñi way leen baw Cheikh bu na naa Sidi bu yaa ma bëgg Cheikh Sadou Labe jàmbaari góor bari doole bari Cheikh Taalib Abdoulaye waaw. lii lan la. aha. jàmbaar bi ñu ndeysaan. si tariqatu xaadiriya. Hmm. Cheikh Saad bu Abi. Hmm. waaye lépp dellu si Cheikh Abdou Khadir Jaylaan. wallaay sultaanul awliya ndeysaan buur wëli may wax ne. ku bëri woon ay tur la. wallaay ndeysaan. mais loolu day tekki xutba gu mu doon waaye nee na man ëpp naa xutba. wallaay ndeysaan. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan bahrun laa saaxila la wallaay laa saaxila la géej goo xam ne amul frontière mhm. wallahi mhm. waaye nag si kan la ko jëlee si maamam wallaay ndeysaan faaxat na bi wallaay fii xalqin wa fii wa fii xulqin walam walam yu daanu fii ilmin wala wala karami wallaay ndeysaan <laughs> billaahi kenn musul gis loolu moom maamam mhm. mooy sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam saydul jinni wal bashar mu donn ko si lu bëri mm-hmm. da daan wax ne gars yi fan lañ daan xamee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sama maam mm-hmm. ndax fa jaddi mm-hmm. taaha muhammad wallaay ndeysaan ana abdou qadiri jaylaan sayqu kulli taal o oh, oh, oh, ndeysaan nan lañ daan xamee sama maam ndax dañ leen waxoon kooku bu ñëwee du lekk li nga xam ne moom mooy sarax waaye lan lay jël haddiya ndeysaan waaye moom si lan lañ ko doon nattee si woor uh, su weeru koor ndax kenn ku ne xam na ne mhm. si weeru koor si mhm. fukki fan ak ñeent jëm guddi mhm. fukk euh, fukki fan ak juróom la juddu bi mu juddoo xëy ñu jox ko ween bi nàmpul ndeysaan ànd ak nit ñi di woor ndeysaan ba ngoon ñu jox ko mu nàmp wallaay ndeysaan waaye kii moo doon yonent bi <laughs> mu ne lan moo leen di wan ne mhm. man xutbu mhm. man maa tiim mboolem awliya mhm. mooy man heure bu ne wala waxtu bu ne damay wàcce kaamil te heure bu ne yàllaa ma wan laxwul mahfuuz ma te jàkk sama bët kooku koy Cheikh Abdou Khadir Jeylaani sultaani lawliya lawliya ah, kooku ah. sang du ko gën a màgg déedéet déedéet dafa mas ñëw si àll bi di dox ba mu yàgg mu gis ay nit mhm. toog mu ne leen waa yéen lan ngeen di dundee mhm. ñu ne ko nag yow gan nga gan du yowi bëy mhm. mu ne dama leen a bëgg a laaj rek lan ngeen di dunde ñu ne ñun de su heure lekk jotee am na tur bu ñuy wax tur boobu buñ ko waxee rek kooku moo ñuy jox ñu lekk ndeysaan ci lu wér mu ne ko kooku la kooku mooy kan mu ne kooku mooy Cheikh Abdou Khadir Jeylaan mu ne bu ngeen ko gisoon di ngeen ko xam ñu ne ko déedéet mu ne maa nekk nii ndeysaan bi mu nekkee xale kenn ku ne xam na ne mhm. da daan xool yaayam mhm. ba mu yàgg mhm. mais nag ku teel ñàkk ay waajur la li daloon maamam moo ko dal waajuram dafa teel a génn àdduna yàggut ak yaayam waaye da daan xool yaayam ba mu yàgg mu ne ko yaay rafet nga lool waaye sa cicatrice bii rek moo moo la yàq ndeysaan mu ne ko doom sam nga lii ba may dal xamuma sa waa xamaguma la xamaguma sax sa waajur mu ne ko damaa bëgg nga nettalil ma nan la demee mu ne ko fi nga nekkoon mhm. am na ñoo xam ne mhm. ay agresseur lañ woon mhm. defkatu lu bon lañ woon benn jour da nga jug di dem di rooti wuti ndox ñu ñu agressé la bëgg a def ak yow lu neexul yàlla nga ne yàlla bu fekkee ne boobu ba léegi maa ngi téye sama bopp sàmm sama bopp caaxaanuma foowuma mm. ba tey jii ñii bëgg a ñëw caaxaane ma mm. maa ngi lay laaj ñaan yàlla nga nga nga intervenir ndeysaan benn ceeli moo déparé ci kaw mm-hmm. ñëw luqi bëti agresseurs yi fekk moom boobu dafa xëm ceeli bi pour mu ximmaliku yaay ji mu jël weyi xoos si jëbi mhm. loolu moo waral sama si cicatrice bi jërëjëf waay jërëjëf wallaahi <laughs> kon Souleymane dañ lay bàyyi nga ñëw ba si kanam incha allah macha mhm. allah mhm. Eh, jërëjëf macha allah Maodo gis ngeen xekaayaat yu riis yu am solo yi mu nekk nettali ci sultaanu lawliyaa yi ndeysaan nga xam ni mooy buuru waliyu yi wallaahi ndeysaan Xaadir Jilaani tabaarakallaahu kon Maodo fi nga dóor neex na ndax fi ma kura dóor moo neex damay ñëw mu baasharatan Babacar lan nga indil waa Walfadjri tey jilirangoona wurusu marjaana jilirangoona wurusu marjaana Ousmane Diagne Ousmane Diagne jirirango na Ousmane Diagne Cheikh Diagne lirango na Ousmane Diagne jirirango na Ousmane Diagne Ousmane lirango na Ousmane Diagne Sëriñ Xutub rango na rango Usmaan marjaana rango na marjaana ay bu naan na rango na ajara. مرجانا أوتيت الهوى من قبل المرانجو مرجانا أم الخير البغداد يخلص مرجانا اسم مرجانا سنايا من فوق المرانجو مرجانا سماوات كل يالو Morango su Marjana Mami Chérif Kutub Aydara eh, Aydara Marjana Mini Rawona San su Marjana Cheikh Saad bu Chebu Aydara Aydara Aydara Karara Mini Rawona su Marjana Cheikh Jeyli rangoon na Jeyli rangoon na Jeyli rangoon na Urusu Marjaana rangona rango rango na abdul khadir rangona jaana ndeysaan la wallaay wakim doomi baabilaay wakim doomi baabilaay waxti mu waay daan jeega garangoona wusumar jaana na wallaay saan wanaajitu yaa jaylaani wanaajitu yaa jaylaani man yàlla maa lay woo jeega garangoona wursu marjaana siraahiya min fawqaayi siraahiya min fawqaayi tàllal na ñaari baaraam yaa Abdul Xaadir rangoona wusu makkaana ndeysaan walaay Abdul Xaadir Jaylaane Kaamilu Jayle yeah alawliyaa ku sapp maami Serif Kutub ay dara jóg leen taxaw seen xol leen ñu màggal Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani bi Jaylaan nee naay ku bëgg si Abdul Xaadir Jaylaan nee tut leen taxaw sal xol lañu màggal maami Cheikh al Bunana ay dara doy maami Cheikh xotub ay dara Seyduna Mohamed ngay dara Thank you. juddu waay <laughs> ah sëñ Babacar Ndour waaw ah. Babacar mm, mm. song nga borom Bagdad mm-hmm. Maodo Malick wallaahi Babacar song na waaw bi nga xam ni dañoo bañ ba tuddee ko sultaanul awliyaa yi mm-hmm. Abdul Xaadir Jeylaani mm-hmm. dem nañu ba tuddee ko Seydul Muhyiddin Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani doon xutbu boo xamante ni dimension dimension bu kenn mënta expliquer dinaa ñëw yow ci benn bayit mhm. boo xamante ni mhm. Babacar moo ko wax bi ngay nettali xikaaya bi mhm. Maodo waa ji nga xam ni moo nekkoon ca mbooloo ma daf ci amoon koo xam ni jamono boobu xawsu la. xawsu. xawsu la. Mhm. xam nga xawsu ak bu bokkuñu. bokkuñu. xawsu bi ci boppam. moo am ndeketi turu yàlla bi muy wirdi mhm. bay egg ci pied yàlla ya. Mhm. yaa Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani la. loolu turu yàlla moom. wallaahi. loolu mooy turu yàlla am. moom ci jëm boppam. moom la Cheikh Abdoul Khadir Jilaani gane comme ni nga ko nettalee Maodo. waaye li ci yéeme mooy. Mhm. moom xamul ni ki muy dundee. Mhm. xamul ni secret bi mu yore. Mhm. mooy jëmm ji ko yàlla indi ndax dafa tarbiyee jëmm ji. di ko tarbiyee ci kurus ba jëmm ji ñëw ci kanam. mais Cheikh Abdoul Khadir Jilaani boobu moo bëggoon a. reer. munu ko yow ak ni nga toll nii xamul ni Cheikh Abdoul Khadir lay wax. li ngay nettali. mu ni ko ban kimmiya nga yor mhm. ban kimmiya mhm. moom nga yor ban secret mhm. mu ne ko da bëgg a lekk xaalal rek yëkkati yëkkati palaat bi ni yaa Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani mu fees dell ak misu yi mu ne ko am lekkal xam nga tëgg mi dinaa ci ñëw ndax war naa la cee laaj directement mais wax bi Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani dafa am benn moment sunu borom asamaan si lëndëm benn xut bu dematul Babacar benn xul bu dematul benn wëliyu dematul dara buuseetul dara xewatul Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani moom dafa fukk malakoot déggoo ma de asamaan si lëndëm amul kenn ku jéggeeti kenn jéggeetul Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani moom fukk moom dem malakoot ñëw a ñëw ba ci buntu kër yàlla di xaar di seet ban geste lay def pour yàlla yëg ni moom egsi na mu ni xaaral yàlla kenn du ko fëgg du respect daal jël bigam boobu nga xam ni bokkut ak sunu big yi Babacar ki nga tudd daal di jël bigam boobu nga xam ni Maodo bokkut ak sunu big yi daani waqiftu bi baabillaahi yàlla ñu ngi Cheikh Abdoul Khadir bi ngay dem foofu ndax ndax dafa am ñu la accompagner woon ndax dafa am ñu la gunge woon mu ni billaahi wallaahi waa man kenn man abdu man Abdul Xaadir Jaylaani mu waahidan may wéetal kenn ki nga xam ni moom rek ay buur te mooy yàlla lam yelit walam yuulat walam yëkkun loo ko fan axat nee na Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani nee na wallaahi alaadim Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani nee na fi ma tollee foofu mhm. ci la ma yàlla téléphone directement connexion am réseau am munu wa naa diitu yaa Jilaani munu ma kar téléphone ne ma jëli bàyyil fi nga toog ëddu xulli xadarati duggal exil yow Cheikh Abdoul Khadir Jilaani Adja Faat Diop mu ni ko exil dugg sil mu toog déyanteeg boroomam waxtaan ak boroomam moo tax mu am fit ni wa'lama allahu nabaatal ardi kam huwa naabitun loolu nit ñeme na ko la wa'lama llaahu nabaatul ardi kam huwa naabitun ñaatal yàlla xamal na ma gàncax gi. suuf si. Mhm. ndox mi mhm. lépp lu fi dox ñaata la bu dee ndox mi la. Mhm. litre bi xam naa ko. bu dee suuf si la. ni mu toll ci diisaay xam naa ko. bu dee secret yi ak mbóoti ak asraar ya buñ ko toppee fii la ñuy fanaan. damay ñëw directement. ci kële nga xam ni tey. mooy invité bi. xam nga. li ngeen def tagg yonent bi la. sallallahu alayhi wa waaye ngeen nekk ci ay héros doon ci ay jàmbaar jaar ci fu bari. jaar ci fu baree bari xam naa lépp xajul ci yëf yi. mais Mouhamed Ndiaye. li nga doon tëgg dafa neex. ni nga ko doon tëggee neex Mouhamed fan nga jaar ci li nga doon def. ah waaw Souleymane jërëjëfati. wax dëgg yàlla su suma carrière ba ma ci laajee dinaa ci am lu ma ci mën a wax tuuti wax dëgg yàlla man ay tabala yàlla moo ko def ci man Souleymane damaa am 18 ans jàpp 20 ans di football ndoog ñoom Ousmane Mbaye ñii sunu mbedd kër man maa ngi dëkk boori kër Cheikh Yirim cheikhu cheikh na cheikh Saad bu boobu. cheikh Yirim Ndoumane Seck. maa ngi nuyu cheikh Baye Cheikh Seck. mi nga xam ne mooy général ba. ñu ngi koy nuyu bu passage maa ngi koy nuyu bu baax di ko yàlla ne. Mhm. ma am euh, jàpp 20 ans. Mhm. bu may fubala ndoog sama morom yi ca koñ ba. Mhm. damay dégg cheikh Omar Babadi Gueye. philosophe bu mag ba. wallaay ndeysaan ëtt kër cheikh Yirim. wallaay ndeysaan. su ma nee ci terrain bi di fubal. Mhm. damay dëgg muy muy muy woy anta. muy way anta bii ñoom baama di woy ak ñoom Mugura. wallaay ndeysaan. su ma nekkee ci terrain bi di fubal de damay absenté deetuma fi ne. dëgg la. te bal bi sam papa man la koy jëndal maa koy moom. wallaay ndeysaan. damay toog ba ci yàgg rek bu bal bi génnee rek ma këf ko rek bu di wuti kër seex Irim. Oh. su ma ñëwee fekk Abdou Khadir Cissé ndem si yàlla sa oh nga xam ni mooy professeur. kullu tëgg tabala ci àddina laa lay wax. Cheikh Abdoul Khadir Cissé. maa la wax lii de. wax nga lu lay de Mouhamed. daan naan laa ñu noonu. Mm-hmm. moo formé ki ma muy Abdou Gueye. non da nga wax lu garaaw da ni. Cheikh Abdoul Khadir Cissé. mooy professeur kullu kuy. ma tëgg tabala. mooy sa xalifa. ak mm-hmm. foo dëkk ak foo bokk. est-ce que Khadir Cissé. kooku moo toqantal Abdou Gueye mi nga xam ni. Mm-hmm. moo ma formé man. est est boo déggee galañ yi ma fi mujjee tëgg yëpp. Mhm. moom la moom Abdou Khadir Cissé. Oh. sama professeur ba yor ko di ko doxal. di ko doxal di ko doxal ba bàyyi ñu ko fi moom Abdou Guèye. sa professeur Abdou Guèye. waaw est di ko sant moom Guèye fa mu ne yàlla na yàlla seral ay yaxam. amiin yaa rabbal alamin di ci jiital Cheikh Omar Baawadi Guèye. est-ce mi nga xam ni. Mhm. li may wax ci Abdou Khadir Cissé moom laay wax ci moom. Mhm. moom Baawadi. ñun ñi bu ñu dérapé wul ku dérapé wul. Mhm. rek moom la. est-ce que. ku génnul gaam rek moom la. Hmm. barke yonent bi. ki ngay wax noonu. waaw. ku génnul gaam moom la. ku génnul moom la. téel ma sa micro foofu bul bouger. Euh, Jacques Gabriel. Jacques. bu fekkee yaa ngi may dégg waaw envoyé ma góor gi Jacques rapidement ma xool kii kan la. Mohamed xam nga ki waaw ndaanaan baa ngi. xool nga ko bu baax fële. bu bu mag a mag. yaa ngi koy gis bu baax a baax. waaw mu mu mu uuf taawam bee di Abdou Gueye. ak ah, kan kan moo ci sa kan moo ci sa professeur. Abdou yi moo sol verre yi. oh Souleymane Ndiaye moo ko féete sa càmmoñ. ndeysaan nga xam ne darmaanam la woon ñoom ñëpp ndeysaan ñu ngi ci biir suuf yal na yàlla seral seen i yàq. amiin rabbal aalamiin. bay baabu Souleymane ñii. Hmm. kër Cheikh Saad bu dañ koo dundal. ci oh. ci Sénégal laa wax. bay baabu di Guèye rawatina Thiès moom bay muy ndaanaan loo xam ni. Mm-hmm. lii waykat doon xool ci àddina. Mm-hmm. ci ci ci ci bakkan wala koom-koom. Mm-hmm. musu koo musu koo xool. ndeysaan ndeysaan. mu doon daanaan loo xam ni. nga seetaan ko bañoon koo seetaan la yemale. lii xale yi def daaw ko def. ci sooma laa daan gis mu téye ay jàng. mu tàmbali mooy tàmbali jàng yi. ba waykat yi ñëw mu jox leen ku ci ne. est-ce ñu way. kon nag mu pare rof jàng yi mhm. ma ñëw Souleymane mu pare rof jàng yi mhm. way ko ba mu jeex mhm. muy débranché haut-parleur yeeg yi di way est-ce ci soomaa rek laa gisee est lu waay mën a wax coow lee fi nekk rek mais man ku ma xam ni ku ma xam xam ni Cheikh Omar Ba di def na lu sama defal na ma lu ma sama baay bu ma jur defalul ndeysaan Baye Babari Guèye. mooy mooy mooy Soomar. jërëjëf fi ne rek. jërëjëf jërëjëf wax jëf rek ay ak jërëjëf ak ak it xam nit dina dugg ci loo xam ni. wallaahi xëy na peut-être dina ko def xam ni def na erreur ba juum na. dëgg mais Soomar képp kuy téye micro. waaw baa ngay téye ay galañu tabala. waaw di koo tëgg rek am na lu mu def sa carrière. léegi jërëjëf Mouhamed ah euh, kon micro. deux minutes loo may ñamal ci Baye Babadi Gueye moomu loo ma mën a wax ci moom bisimilah benn air nga may daa daajal ci moom ci Baye Babadi nga mu accompagner lu ñu dellu siwaat ci deux minutes ci moom bisimilah nay Baye Babadi rek. ملك العقل المبين tabarakal رسول kooku mooy sunu wayjur bu baax wowule di bàyyi baaba di gay ndax ku ne xam na ni nag eh, kenn du tuddu tagg yonent bi ci kër Cheikh Abdul Qadir Jeylaani te du tudd sunu bàyyi bàyyi baaba di gay yàlla na yàlla kawelaal janaam yàlla na yàlla yeesal yërmandeem boo demee Touba nga tudd góor gi Ablaye Ñang boo demee Tiwaawan nga tudd tudd góor gi mbay donde waaye nag boo ñëwee ci kër Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nag am nga fitu tudd Baye Babadi Guèye mm-hmm. tabarakallah ñu nuyu waale Cheikh Fadal Guèye ziar ko mm-hmm. nuyu waale baax Cheikh Sidaati ak njaboot gi yëpp Modou Guèye sama xarit mm-hmm. tabarakallah ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar leen tabarakallah ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah incha allahu taala mu mel ni euh, euh, Mouhamed baax rek am solo yàlla yàlla di xiirtal ci mbaax ak def yiw ba tey Maodo tey ñu invité temps bi rek laa bëgg ñu jël ko ñoom xam nga Mohamed du ma yem ci Baye Baabadi dafa am beneen photo Jacques am na keneen ku ma bëgg ngay indil ma photo am Mohamed xam nga kii waaw kii xam nga ko bu baax a baax. bu baax sama rak. waaw kay. sama xarit sama meer taalibe kan. sëñ Babacar si. kon Babacar taalibe sëñ Babacar looy wax ci Babacar. maa la wax lii. bëgg leen mbay gàmm leen mbay. dabal leen mbay. naa la sama xol bi ba Babacar mbay minti bi ma xanaa woo yaare mbay baru tariqa be yaa sellal lay la la bëgg la ne mbay gam ngan mbay siyaare naa la jox naa la sama xol bi ba Babacar mbay minti baayam daba njaay mooy yaayam waalo waalo be mooy min tiidi maxna woo waaw waaw doktooru tariqa be asalal li mu doo mooy min tiidi maxna woo mooy tijaani wax nanu wax nanu loxo ca kaw xalifa Baabakar tijaani wax nanu la ilaha illallah xalifa Baabakar tijaani topp Serigne Babacar seeni loxo ya ca kaw di ñaan ku bëgg Serigne Babacar si jógal taxaw ca kaw di ay waay Tijaan yi wax noonu li seen wërsëg nañ ko xaati ay bi ay bés wara mbay mbay mi bi ma xanaa woo waaw waaw tariqa bi yaa si la la fan woote na loxo ca kaw xalifa Babacar Tiwaaw ku sopp Sëriñ Babacar seeni loxo yi ca kaw Tiwaaw ku sopp Sëriñ Babacar si seeni loxo yi ca kaw Tiwaaw yéen Tijaan Tiwaawan woote na gaal yaa ngi nii dugg leen ku fa dem mbay si fii ku fa dem mbay si fii ku fa dem mbay si Tiwaawan ku fa dem mbay loxo ca kaw yaa way mana ila tax mi mën ma sa yaawo way leen mana ila tax mi mën ma sa yaawo waaw man yaa way mana ila soppay Babacar seeni loxo yi ca kaw yaa way ku sopp Sëriñ Babacar jógal taxaw ca kaw ku sopp sëriñ Babacar seeni loxo yi ca kaw ku sopp sëriñu Habib seeni loxo yi ca kaw ku sopp sëriñu Habib seeni loxo yi ca kaw yee yaa way mana ilo tax mi min masaya o way leen mana ilo tax mi min masaya o waaw waaw ndeysaan Abakar ku ma soppal borom bi jóg leen taxaw sal xol la ñu magal baayu Cheikh Tidiane baay Mansoor Maalik mbayoo Abakar Sadiq Mbay waaw Mohamed tey nag Maodo gis nga gaa yi Mohamed dama bëgg a xam jéeli yi ñoom ñaar dañoo am tur wala ñoom ñaar ñëpp jéeli lañ leen woowee. waaw bi ma xamli koo day hmm. dugg si kër Cheikh Sadbou ba tey. Hmm. ñaar nekk samay kanam ay jéeli laa leen ñoom jéeli lañ tudd. Cheikh <laughs> seen tur daal soppeekuwul jéeli la tudd. jéeli lañ tudd. waaw non il faut que nit ñi xam ni. cheikh na cheikh ah cheikh Abdul Xaadir Jeylaani li mu wax dafa leer. nee na tabalaam yi ne nit ñi xam loolu nag nee na tubuuli duqat fii samawati wal ardi nee na sama tabale yi ne nit ñi xam ne buñ ko rëkkee day dem ba biir asamaan juróom-ñaar ñu koy dégg. kon ñoom ñaar nu ñu tudd nga ni. Cheikh Abdou Khadre hmm. waaw moom ñoom lañ tudd yii ma sama garam. waa hmm. ku ndaw kële ku ndaw ki. kii te lakkal waaw lu tudd. yii ay ordinaire la. ah ordinaire la tudd. waaw moom day moom laa fekk sama professeur bi di ko wax. ordinaire. ordinaire. waaw bële mooy ordinaire. waaw saa waay du yëkkati ordinaire bi ma gis ko. parce que ñu bari xamuñu ko waaw kay. koo koy ordinaire. waaw. waaw koo koy ordinaire. mooy li Ousmane. ki ci topp lu mu tudd. bii. Hmm. bi ma xam li ko. waaw moom it la même chose. mbës laa dégg ñu koy tëddee. mbës la tudd. waaw. d'accord bi Kora Ndiaye tiim. waaw Kora. lañ ko cee day neexal waaw kay. waaw dégg nga ko noonu moom bañ na ba wane na boppam. waaw wane na boppam moom. moom ak lu mënti ak fu ñu mënti jëm. waaw moom mooy joxe chemin bi. ah d'accord d'accord d'accord. lu ndaw lii ngay gis nii. Mhm. mooy wane chemin bi. d' accord ñëpp ràmbal topp ko. d' accord ah moom mooy jiite yoon wi. li may jiitu yëpp. Mm-hmm. li may jiitu yëpp. Mm-hmm. moo may moo may xaajul yoon wi. noo wax nga ma lu ma musul xam. waaw yow mi ne ci kanam. li may li may jiitu yëpp li ngay jiitu yëpp. moom mooy diriger. bii mooy diriger moo lay wax ni la fii nga war a jaar. fii la jëm. Oh. te loolu ay wax la. waaw. ah affaire yi yéen ñaar. su dee loolu affaire bi dégg dégg la. loolu loolu fii la. mais loolu su dee fii la. loolu day nekk ci doon xaadir taxul nga mën a tëgg tabala. waaw loolu war na leer. ay waay temps bi. ay doon woon ak temps bi doon taalibe ah. Cheikh na Cheikh Saad Bou hmm. taxul nga tëgg tabala. Hmm. taxul nga way yeneen bi. dëgg naa dëgg saas la. dëgg la. man ma sama kenn di tëgg. dëgg la. li ma yëg ci baawa di laa ko yëgee. dëgg la. ak la Abdou bi ma bi ma ko Abdou. mi nga xam ni moom ma formé. Hmm. ndeysaan je me rappelle daayira som yëpp maa ngi leen di ndem si yàlla sa vieux ñoom vieux Touré ña fa newoon. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm-hmm. jamono yooyu Abdou moo yor daayira daayira son mm-hmm. dama daan def bu bu bu timis jotee rek. ma dem këram. ñëw ànd ak moom ñu dem daay som ci laay topp ci loolu topp ci loolu topp ci loolu ba mën a mbalax mii jërëjëf mu bëggoon ma loolu nag moom Abdou tellement récupéré def ma ci ginnaaw ma koy mbalaxal ma koy mbalaxal di ko mbalaxal di ko mbalaxal. Mm-hmm. ndeysaan maag ñi ñi ma ko daan defandool au passage am papa As maa ngi leen di nuyu. ku mel ni papa As euh, baraadaaw Daaw Isma euh, euh, Isa Aw Abdou dafa amoon njaboot dafa amoon ñoo xam ne da leen da leen a yoroon atelier am di leen jàngal métier ba pare. di leen jàngal tabala man nag tabala laa jàng si woon at atelier bëgg tabala rek moo ma taxoon a doon tailleur. ndeysaan <laughs> bëgg tabale moo la taxoon doon tailleur léegi léegi ba tey Mouhamed. heure bi moo ñu xoj. Mhm. moo tax liñ bëgg a jàllale lépp duñ ko mën mais li ma lay laaj rek mooy beneen bi ci topp nu mu tudd. bi Ousmane Mbaye yor Ousmane Mbaye. ndaanaan boobu mooy bële mooy bële. ah. na wane boppam na wane boppam. bu njëkk Souleymane. ma ni na wane boppam. Massamba jërëjëf Souleymane yii ci ay tabala amul woon waaw ñaari tabala rek amoon waaw jël yi dox ci Guinée tabala yii waaw yii benn galañ lañ ko daan tëgee benn kese maa nangoo lii ci sama professeur boobu Abdou Gueye mm-hmm. mu ni ma benn galañ dañ daan tëgee tabala waaw Abdou Khadir Seye moom ma la doon wax nii léegi waaw moo njëkk a téye ñaari galañ Baye Abdou Khadir Cissé. maa la wax lii. papa yi Ismaïla. papa yi Ismaïla Cissé ak ñoom Ahmed Cissé. Ahmed Cissé ndeysaan. borom korité borom laa demee korité. ndeysaan moo njëkk a ñaari galañ. tëgg ko mais ñaari yi rek la woon. ndeysaan bii ak tambat. jërëjëf Mouhamed heure bi moo ñu xaw a xoj. mais Souley bala ngaa dem. Mhm. ki ma woon léegi muy Habib Kane. Mhm. fi na nii damaa xiif pour wax ci moom. ndeysaan ku baax. Mhm. muy xale boo xam ni taalibe sëñ Babacar Mm-hmm. da ngaa ubbiwul. Mm-hmm. liñ bi liñ bi. kon mu dugg xam naa loolu. mais biir na ma ni mu ngi togg di jàkkaarloog ma parce que mi ngi ma doon wax na ma carrément. soo demee nag ma joxal sama sama sama sama sama numéro. Souleymane ma woo ma woo leen. si ndeysaan ku baax la ndeysaan. ba mu xëyee suba dama woolu ma ñëw. jërëjëf xoolal. mu yëkkati xaalis déplacement bi ma déplacé woo ànd ak ñi. waaw moo ko débloqué jox ma ko. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ma koy sant di ko gërëm moom Habib Kane yàlla na ko yàlla yeggale fa mu bëgg jëm. jërëjëf jërëjëf Mouhamed. di di di di ko di ko ñaanal yàlla. Mhm. moom ak ay séeram ñoom Khady kan nga xam ah. ni yàquñu dara sumuy mbir. lu ñu mm. nekk ña nga ca. Mhm. di profité du nuyu asbiram. dëgg la. surtout Cheikh Dethialaw boobu. dëgg la dëgg la dëgg la. nga xam ni. defam lu baax wër na wër na àddina. wallaay wallaay wallaay ndeysaan. moom as biram fay. jërëjëf Mouhamed heure bi rek. moo ñu koy sant di ko gërëm. waaw Fadal ñang ñu ngi koy gërëm. Cheikh du ñang mi ma ko doon way léegi. munu mais mais mais mais mais mais mais mais mais. Souleymane yaa ma wax dëgg la dëgg mais nag temps bi moo ñu ko. doon may te direct la ñu ne góor gi du ñang mooy. sa bu biir Thiès. jërëjëf. mooy sunu cheikh na cheikh Saad moom al cheikh alaaj dut ñang jërëjëf Mouhamed di góor gu baax mhm. góor gu sell mhm. góor gu xolal gu mhm. mën a xol góor gu am xam-xam taw tawanewu ko jërëjëf Mouhamed tabarakallah yal na yàlla guddal fanam Jacques di naa di nuyu daayira Chérif bu na ne yëpp tabarakallah euh, Jacques si soxoo maa ngi lay nuyu di la ziar comme d'habitude yow sama xarit nga yàlla na yàlla fay kontaan naa su lay jërëjëf Jacques xam naa su ma <laughs> mënee indiwaatal photo bi ki ma ki nga mujjee indi muy sëñ Habib Kane boobule waaw góor macha allah ngeen il Euh, su ma nee euh, mu mel ni euh, Mouhamed wax nga lépp tabaarakallaahu mu mel ni baax rek am solo ak yiw ak di def lu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na weer wii di shahru ramadan al mubarak lépp lu nit mën ci lu baax na nga ko ci def waa jàngook jëmm jii di taalibi Serigne Babacar si baax lool yiw loolu ni ko Mouhamed waxee nit dangay ngay toll foo xam nit ñi kenn moomu leen kenn mënu leen a jënd Babacar mhm. man bokkuma ci ñi ñuy jënd doxuma ci loolu waaye baax dafa baax ci nit mhm. am dignité am personnalité dafa baax ci nit xam nga lu tax nit fexeel ba moomal sa làmmin soxna Faatu ba kenn du la yeb nit da ngay moom sa làmmiñ noonu la ne gis nga tey Mouhamed ni nga libre parce que li ngay wax sa xol nga koy waxee mhm. li ngay wax da ngaa moom sa bopp kenn yi liwufu la loolu rek moom moo am solo kontaan nañu seen ñëw bi ngeen teew fii tey kontaan ci sëñ Habib Kane bile di taalibi Serigne Babacar Sy xam nga lu muy def benn anecdote rek bi ma ciy wax bu gàtt daal di tënk ndax heure bi xoj nañu te jot na te am na ñeneen ñu war a ñëw jël seen wàll ñoom tam. Euh, li may tënkee te bàyyi gars yi ñu tëjal ñu benn air air boobu la ñuy tàggatoo balaa boobu Maodo am kàddu yu mu dugal moom Habib Kane bii for naa ci wéewu bay ñu ni bu gàmmu jotee day ñëw ba xabru Serigne Babacar Sy ca wetu jumaa ja mu takk foog ponkalum kuy bàyyi ko fa dem yoonam. yoonam nekkul ci ku yëg ni ñëw naak ñëwul waaw mais loolu loolu lu ñu bëgg alal ji boo bu la ko yàlla mayee teraanga at na ko adduna yëpp ji alxuraan dafa wax ni wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa maa anfaqtum rek min shay'in fa huwa foo am ñoo xamante ni xoolal si per ndaje am na ñoo xam ni làmb ja am na ñoo xam ni mbiru caaxaan yi rek ci la ñuy jël di ci def seen alal mais koo xamante ni day def surtout weer wii nag weer wi nga xam ne óolu woo Maodo yaa may tënkal weeru ci une minute awaluwul ma euh, euh, rahma wasatuwul maxafira wa axiru xatum ne naar Maodo une minute la incha allah ñu jë jë jóg ak ñun ci benn tàggoo bisimilah. Hmm. gis nga liñ wane nii nii. Hmm. sànq ñooñu. Hmm. xam nga dañ fee nekkoon ak ñun. di def li ñuy def. wallaahi ndeysaan tey yàlla jël leen. dañ see war a def ay jàngat yu rëy. yu rëy yu mel nii buñ ko wanee. jàngat yu rëy di si wax li si sëñ Babacar waxoon rek mm-hmm. mal mar u illaa xadisun baadahu fakun xadisan xasanan li man waa wallaay ndeysaan nit koo gis nettalikaay la gannaawam rek mm-hmm. kon fexeel tànn doon nettali bu rafet si sa gannaaw mm-hmm. yaa ngi dégg dama dégg léegi ngeen wax sëriñ Babacar mu nekk fardu zaman ba sëñ Seex Ahmad tiijaan mi nga xam ne mooy doomam soppoon ko lool roy ko lool donn ko lool ne ko laala eh, wa fil aadabi fardu zamanihi inna zaman muaddibun li ta'dibihi ta'dibi sëñ Babacar yow yaa yaru mhm. da ngaa yaru ba sa jamono mhm. yow sa yarute moo yar jamono sa yarute moo yar jamono mhm. dafa yaru woon ba nga xam ne yarutee moo yar jamono ndeysaan nim daan mel bu génnee si mbooloo noonu lay meree su wéetee kon nga xam ne kooku mooy xaar yàlla siidi Roosa Siidi yi nga xam ne ñoom meen Roqee Njaay <laughs> wallaay ndeysaan Seydil Xaaji Malick am ko si ndeysaan mu ne ku ma jurul woon mm. kudul Seydil Haaji Maali tamit mm-hmm. du ma dee du ma tee doon xalifa see Ahmad Tidiane nee na ko bu ma laman fàn leen juróon wallaahi laman fàn leen boobu le wallaahi su ma juróon sax du ma tee doon xalifa see wallaahi wallaahi ndeysaan wallaahi sëñ Babacar <laughs> moom nag liñ bëgg a nettali duñ ko si mën a nettali wallaahi mais nag di kontaan bu baax rek di mm. profito mm-hmm. euh, lii la benn la sotti si la def si la mm-hmm, ndax ay nit boo invité ba ñëw tamit da ni may temps ñu wax rek loolu moo waral lii nii merci mais kontaan nañ bu baax a baax di nuyu ñi ñu doon seetaan ñëpp di nuyu Serif Meng ñi ngi koy nuyu mhm. waaye di nuyu Soxna Ara ñi ngi koy nuyu mhm. waaye di nuyu ki nga xam ne mooy suñu yaay Mariama ni ma ko waxee woon mhm. ak Soxna Xadijatu Guèye kontaan nañ bu baax a baax a baax di waxu axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin kontaan nañu Maodo Malick macha allah mais nag duñu fàtte suñu techniciens yi nga xam ne ay ndaanaan lañu ku mel ni Jacques Gabriel mhm. Pereira gis nga loo ko laaj rek balaa seconde muy ndil la ko mhm. ku mel ni Ajaratu Ndey Pende Diallo Guèye macha mhm. allah waaye kenn du Kéba moom it mayul gars yi fu gars ñëw rek topp na leen waaye kenn du Babacar Lo waaye Babacar Lom dañ yaakaar moom it kenn du boobu macha allah nee na Moussa sa gars tey mu neex de man quoi Babacar tey mu neex li ci gën a neex mooy da ngay fàtte ni sax da ngaa wóor loolu ci gën a neex kon nag gars yi yéenay seet rek fu ngeen ko sëmbartalee rek macha allah ngeen ànd Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ma wax ko ci as biram fay c'est que xam nga luy problème bi Mouhamed waaw temps bi moo ñu mayetul dara fi toll damay sant ngërëm rek waaw parce que dañuy ñoo xam ne dañuy sonn si ñun wallaay ndeysaan dañuy sonn si ñun trop maanaam da duñu jóg ci def ci ñun lu baax jërëjëf Mouhamed mënuñu nekk ci tele bi te sant ñu leen gërëm leen jërëjëf Mouhamed jërëjëf Diaw jëf su ko defee incha allah aha uh-huh. uh-huh. waaw bisi bisimilah bisimilah bisimilah waaw bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah te moom mu moom invitation dëgg la dëgg la dëgg la ñu ko fokk ma ci rafet na Diop. xam nga man dara am na yoo xam ne taxu may yóbbu. dëgg la Diop dëgg la Diop Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam Diop dëgg la. waaye Paul mi day xale boo xam ni. li ma gën a ma gën a gis ci moom. Mm-hmm. te gën koo sopp. Mm-hmm. mooy diine. dëgg la ku am diine la. Mm-hmm. Paul lépp luy ñàkk fayda mm-hmm. àndu ci mm-hmm. te macha allah. Mm-hmm. mu mu ngi ci liggéeyam di liggéey mu ngi ëtt Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bu ko weesoo mu nga këram dëgg la jóg amul benn kasaw-kasaw xale bu baax la bu mun a wax lu baax ci nit ma koy ñaanal yàlla fii mu teg tànkam bu mu ko teggi yàlla na ko yàlla jàppale bu mu am leneen ak leneen ak leneen loolu laa doon wax ci moom eh, li ma ci bëgg a wax yëpp sax mënuma koo wax dëgg la tabarakallah soxna Fatou Euh, heure bi rek moo ñu xoj. waaw xam naa ko waaye li ma bëggoon ci rek ak Makoro sax. wallaay dama koy dama koy siif xam ko ma koy jox. Mhm. dama koy jox Fatmata Gueye moomu. mu ànd ak gars yi mooyam yow Fat soxna Fat Diop. <laughs> da ngeen a war a ñëw yow ak moom mii. da ngeen a war a ñëw. ñu invité leen fii ci Walfadjri